asalaamaaleykum mbokk yi ñëwoon naa ak yéen sànq si benn vidéo bi ñu si tawat tawat nag dafa am lu naturel si laa ñëwoon barki dem rek mooy feebar bi nga xam ne rek jàngoroo ko yéen mais moom beneen tawat boo xamante ni nag dafay nekk mbirum zaayir am na de damay joxe benn exemple benn couple ñëw na fi. sëy juróom benn am amuñu doom ma seet ku jëkkër defal ko analise yu war def yëpp gisuma daal si moom ma def ko ku jigéen gisuma daal si moom mais bi ma laajee ku jigéen ki mun ma saa yu demee ba jël bis ba am yaakaar su géntee rek bu xëy day léegi saa yi si laa ko jox benn ñaan mu ne ko loolu daal jàpp naa rab si la mais ñaan gi fanweeri defan la ko jël jëlam kon kooku suñ jàppoon ne feebar kese ko dal dana yàgg du ñu am doom kon yooyu neexul a weddi si la bokk bu yàggul dina dégg mu leen expliquer soxna soosu nga xam ni moom dafa sëy lu yàgg amul doom kenn bi ñu ko joxee ñaan gi bi ñu ko sangoo jaan la gént mu génn si yaramam si la ci leen ak beneen soxna bi nga xam ni dafa doon gis nekk Canada gré léegi bi mënta arrêté docteur yi Canada def nañ bu ne échographie bu ne gis ñu dara mooy gis ma ko lim lay ñaan bi mu ko utilisé ba rek arrêté sama jël ëmb kon loolu du luñ mën a daax jinne nag dafa am lu bëri muy duggee si yaram jinne tiit mu di nga sàgganu di nga nekk sa moment d'extase mbégte trop wala si caaxaan mu dugg la lu ñuy wet loo am la tuddee dugg nit nit ñëw na di gént di tuur ndox fu ne mu dem fa bi ma ko laajee mun ma dafay mel ne ku nekk si douche ma xam ne loolu jinnee koy def jinne ju saay koy def nax boo tuuree ndox ngay xam jox ko ñaan mu bàyyi nga xam ne loolu jinne sax soxna su defoon témoignage dafa naan témoignage leen koy YouTube bi moom États-Unis la nekk ginnaaw yàlla doomam jooju moo ko tàggalee loolu si la dugg armée États-Unis mu def ni témoignage sax témoignage baa ngi si sama chaîne kon yooyu du luñ mën a dàq jigéen mës na ñëw ñu def loo ko échographie gis ñu dara si moom ñu jox ko càngat mu jël ko juróom-ñaari fan ñu defaat écho gis fii moom si moom du yéeme du yéeme maanaam mbirum faj dafa dafa ne lu doy waar boo si nekk ba si biir sax yow am na yoon boo koy wax ki xamul mbir mi danaa non ki day lépp su ma jigéen bu baax temps yi may nekk euh, RDV temps yi maa ngi na euh, ko jox ñaan yàgg na si wàllu jàpp mais dafa ne bay dugg këram la plupart ko mu daanu saafara tuuru mu ne ko yow lay jaaxaloo ma suñu sàmbaama jaaxle yow jaaxaloo ni la ko ànd waxee jaar sama tur lu yéeme kon jinne am na li ñuy bañ kañ mooy lu la dara nga ni jinne la mais nag am na moom lu am la lu wér la kon rab am na rab nag mooy jinne waaw olof yi ñooy wax rab rab yi wax jinne mais benn la kenn mën sàggate ñu bàyyi a baax a baax nag ay heures yoo xamante ni boo dee dox danga koy moytu mooy bu timis ji dugg bu jant bi wàcc ba yu xonq yu xonq yooyu di génn di waaj a dugg du yor yooyu ñoom dañuy daw seen doom yi daw di laaxatu si nit ñi boo si génn mën na dugg sooy toog si ker aussi fi ker gi jeexee naaj bi di commencé diggante naaj bi ker gi fa ker ga yam danga fay moytu toog foofu jinne fay faral nekk nañ fa dugg dox njolloor aussi baaxul mën na si dugg di sàgganu baaxul si kër wala nga dëkk si defar kër xamante ni gu bees la bala nga fay dëkk génne leen te kon nag ñu leen di génne mosoon naa ne kon benn doom boo xam ne ko suulee si kër moom jinne du ko tiim day éclaté comme maanaam ni nit di dëgg si mine anti mine antipersonnel di di di oto wala oto di tànk bay tëb wala muy dagg wala oto bay exposé noonu la exposé bu dee njibar la am na téere moom mun na ko joxe nga suul ko si kër lu fa nekk comme njibar day toj bu mu fekk day toj te ku fa dugalee ci njibar doo fa toog nit da aar sa bopp ak sa bopp te nag xam-xam dafa am dafa am yu bëri fi mag ñi bàyyi yu fi mag yoo xamante ni sorewul yéen a ngi lekk di jël ay yax di sànni di maccaat di seen yax yi sànni te pourtant lool boo ko dajale am na lu la jox nga boole ko moom boo ko sangoo maanaam ku la sax yàbbi la loolu du la yàbbi dina gis muy dem suñeel pourtant suñeel am na guddi ko am boo ko jëlee xooj ko ndox mu fanaan sangoo ndox ma ku la daal àll boo xamante ne tey jii boo ko suuloon sa buntu kër gi kenn du la gis kër gi lu yóbbu kaso musal kasoo la fa dugg Aí pega telefone, aí ganha se quer levar caso do amuco. Isso muito não vai sobre. E eu fiz mangi baile. Eu mangi baile. Am na lo xantay boko manam togon ba mu ñoo ko ko sa kër. Ku fa dugg difa jëm lu bon. Dana la xat. Dana la xat. xat xat xat booy defar kër gu yees ñu la wutal koñ kër bu nekk nga suul fa ñetti ron reenu ngoloñ ñetti reenu ngoloñ kër gi du mës a lakk fu ñu ko suul te suul ko si digg kër gi du lakk mu ko yetu gumba mooy silmaxa maa ngi dañ saan defal loo xamante ne bu ñu ko suulee si kër ku fa dugg di sàcc dangay gumba du gënal ay bët tax mu bàyyi ba léegi ba léegi fuuf garabu fuuf fuuf muy le circuit Dakar longipenniculata muy l'ancienne fuuf boo fexee ba xànc garab gi def ko juróom-ñaari taxaar boo gis sa jur ba ñu naan si ba màndi nga suul ko si gétt ga ku fa dugg jële bu juri doo génn waa du dem de xam-xam baa ngi fi na nit ñi nangoo dugg wuti xam-xam te gëstu ndax jëm na ko laaj fi nekk moo ko laaj bu def kenn lu bon ah waaye nag aaral sa bopp aar sa bopp mu ko ne sañ na ko xobu garab a ngi nii koo xamante ni bu leen ki tooñee te mënoo ko baal mënoo ko jégal bindal turam si këyit ëmb ko si xol boo ko taalee dootul la am jàmm sa dina baaxul te boo ko mënee jégal nag moo gën wax nañ ne la bu bu la dara jarul di fayu mais nag nit da ngay jàng lépp ñun lu ñuy jàng dañoo jàng lépp dañoo jàng liy jariñe jàngit li li li li li li li ngay aar sa bopp di ko gaaw a jëfandikoo nag waaye buñ sësee kon nañu ñaan yàlla rek yàlla di defal jàmm di indi dal te ñu di ñu xiir rek si lu jëfe lu baax te bañ a fayantoo nañuy jéggale tey jéggal nañuy jéggalu tey jéggale te tàngam ko kóol yi dama ko doon indi rek si contribution yi may faral def di ñaan yàlla nag yàlla segg xol yi fóot xol yi rafetal ko def jàmm dogal jàmm si moom jërëjëf